koy jaay sunu boroom ci daraja rasulillahi alayhi salaatu wa salaam nit mënul nit day jéem waale ku ànd ak Moustapha am ndam wa salaam FKR abal ma ma liggéey dénk nañ ko xaatimul anbiya wa imaamin kulli mursalin yàlla nga dëkk di am sutura sunu borom boole la ci milliardaire u Seydina wa Mawlana Muhammad alayhi salaatu wa salaam allahumma salli dégguma leen de ala Seydina Muhammadin wa salli allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa sallim allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ala sayyidina muhammadin